la ca des mooy jeexale ko war mooy dëkk bi dëkk bi Sëriñ Tuubaa dafa wax ne waccatu dëban maskana la maskana tidaa mu manfaan li kulli haadi muslim wa manfaan an kulli aadi mujrim waxaat ne wa xujjatan foofu itam ñu war wa xajjatan waaye day mel li gën a mel mooy wa xujjatan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 sagalu Sëñ Tuubaa itam nag te kenn ku yéene la Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon benn taalibe rek ba mu ko waxee ne ko lu ma lay jàppale ci liggéey Sëñ Tuubaa moo ko li nga may jàppale mooy fexe ba defar sa kon ñun itam ñu war a sagale mooy kenn ku ne fexe ba defer sa jëm ndax lislaam moom du biir kër nit du xollam nekk waaye mbedd mi rek ndax mu ta li ko bàyyi loolay bëgg na mooy ñéem ñor lu suñ ndam lu sag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 ku ci yor su jàng nañ la tàggat yar la boo génnee mën na amal njëriñ société bi waaye gone bu tuuti goo xam ne waragutu loolu ci waxtu alxuraan sax nga seen ko mu dawal dawalu saret loolu bu màggee ci dëkk bi ak jikko yi muy àndaale yàqu-yàqu bi kenn doo xam fu mu àgg te sëñ bi santaane di diglee ter jëpp lu ma def waaye dugg ci biir kër kenn ku ne wax la ni nga a kon commune bi itam ñoom it xam ne am nañ ci masuuliya nañ fexe ba tegaat nit ñi loolu ci yoon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 ndax nit ñi itam kenn ku ñeneen sëñ bi laa teg ci barab ngir nga ko saytu ak di ko xool kon war ngaa xam li xew waaye dajale ab sàll ay nit ne dañ fee tàggat seen yaram dafa dajale ay góor jigéen loolu rafet wax nañ nag ne ñu ko waxee daaw waaye loolu itam ñu ne ci soñ ndax nit ñi di def boo yëkkati liggéey fa saa sa nañu bàyyi waaye bu yàggee tuuti ñu delluwaat ak yeneen ñu ne demee yu bari loolu mat day bàyyi xel waaw ma xool mat xidma ñoom tam am nañu beneen ñetti lool ndax xam ngeen ne jumaa ji mooy li gën a fonk ci àdduna Sëriñ Tuubaa fa dëkk te barab bu tedd fax naa naa léegi indaka bi doon mu xadas fi ñëw léegi di ko jàpp fowukaay ku agsi di di di ak di génne loolu man yàlla li mu dene sax man yooyu du ma koy seetaan ndax damay gis ne sànq ab dund la solution bi daa wax ne foofu la mënuñu fa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 war a am posture war a nammaat sa posture war xam ki ngay fekk si lu mu doon foo koo xam ne ña njëkk am ku ma sa dugg ci dëkk bi da nga sumb see waaye nga dugg ci jumaa ji benn xemmem teef lu may fatoo génn ci biti loolu du posture bi dara sa bopp képp la nit lu yaakaar yaakaar caa jëriñu ëllëg wóoru ko foye nit du yaakaar du foye yaakaar daa wax wattandiku leen miine ndax nit lu mu miine lu mu miin yëpp te lu mu yëpp lu mu yëpp xeeb ko te noonu xeeb dootu jël na loo yaakaar ne ci jëriñ benn njëriñ du ko mën du la indi dara mooy ñëw war lu newoon ci yow ci lu dul mu tàggale ko yow ci dara jàmm ñaan texeeg ëllëg war a ñaan defal ko àdduna ak àllaaxira loolu mooy foto ak a waxtaan loolu nit ñi war nañoo xoolaat seen bopp nit ñi war nañoo tey nit ñi léegi dafa am lu xew. ñi meetuñu wax ngi dëgg ngir bañ bañ ko dal seen kaw loolu la jërtu ragal kono maa li xaqi mahma kallafakum al amr mënoo nekk ci karaw nii ba di bañ ko laxas ni mënoo nekk ci karaw nii di bañ ko laxas ki ne sayyidul xawmi xaadimum ki ne ci karamu nit ñi mooy seen surga luñ ko xamul sax laa war a sant dangaa dalaa war a def cant bu fekkee yaa nekkul noonu ci lu baax nga fexe ba lool dañ ci yow bu fekkee yaa yaa ne ci digg nag wax ni wóor laa wóor te jeexati ci yow ndax nit ñi yoon wi ñëpp dañ ko bokk yaakaar yi ñëpp ne ci kon mënu si ñàkk ku ci am responsabilité faw nit ñi di la tudd nag jër si jéem a bañ kon loolu ñi ñuy fàttali mooy dëkk bi